CSIP compagnie industrielle de PVC moo ànd ak yéen ci weeru koor yépp ci guddi nafila yi di bismillahi Rahman rahim bismillahi Rahmanir rahim wasalaatu wasalamu. على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبكي تدي نونغي ديلو ديلن نيو ديلن زيارة ديلن دوكيل تيويرو تدي دي نيان بروم سبحانه وتعالى نيمو ني مايي ني بسم الله الرحمن الرحيم ñoo ngi koy ñaan ñu yeggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin yal na yàlla defal ñu kartan defal ñu tawfiix ba ñu eggale ko lépp lu nu ci jaamu yal na yàlla nangul ñu ko lépp lu nu ci ñaan yal na borom bi nangul ñu ko lépp lu nu ci na yàlla jéggal ñu ko xeetu yiw buñ fi def yal na yàlla fulal nu ko mbokki jullit yi niñ leen ko waxe woon benn ceer bi moo ci des te mooy fukki fan yi mujj yi ci weeru tedd wi muy fukki fan yoo xam ni fukki fan goreel la ci sawara fukki fan la yoo xam ni xeetu yiw fa tabaarakallaahu boo ci def dañ koy gën a yokk yàlla da koy gën a ful yàlla na yàlla defal ñu ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa yanzilu rabbana tabaraka wa taala كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول من يدعوني فأستجب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفر فأغفر له يدنت بدفع وحني فكفاني ni بني دمي بخاج mujj yi yàlla subhaanahu wa dafay génn sëpp ay jaamam di wax malaayka yi naan xool leen sama jaam yi gedd nañu seeni nelaw ñu ngay naafi la ñu ngay déeyaaleeg man waaye maa ngi leen di xamal ni ku ma ñaan danaa ko nangul ñaanam ku ma laaj ci sama xéewal yi nga xam ni yéenewu ma ko kenn ku dul samay jaam dinaa la jox ba nga doyal képp koo xam ni bëgg nga seet ci ay bàkkaar boo jégguloo ma jéggal la say rëcci rëcci boo tuubee ma baal la say bàkkaar yal na yàlla defal ñu ko kon bu ko defee nañu gën a yokk naafila yi nañu gën a yokk askaar yi listixfaar yi nañ ko gën a yokk nañuy jàng alquraan lépp loo xamante ni xam nañ ko ci xeeti mbaax ay xeeti yiw nañ ko yokk ci fukki fan yi mujj yi yal na yàlla nangul ñu ko kon bokk jullit yi ñu jox leen naafileeg tey jii di àllarba ñu ni sopp nañu fa tabaarakallaahu ku julli juróom benn ràkka di ñetti sëlmal ràkka bu ci nekk dangay jàng faatiha jàng fa tabaarakallaahu qul huwa allahu ahad ñetti yoon nee na boo ko jullee bu ilaa ahlihi masruura nee na ëllëg boo dekkee ba yàlla subhaanahu wa taala fay la su boobaa danga kontaan loolu dinga dem ci sa waa kër dem ci sa ñoñ dem ci ñi nga xam ni yàlla fay na leen nga ànd ak ñoom dugg aljana nee bu boobaa day dinga kontaan loolu يلنا يلا دفل defal والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته CSIP, compagnie industrielle bu PVC moo ànd ak yéen si wéeru koor gi yëpp si guddi nafila yi di leen ñaanal kooru jàmm